euh, Ngom Niang pour parler de lui c'est un frère donc on partage notre même commune euh, mu nekk xale boo xamante ne en tout cas ku set loxo ku yàgg bëgg liggéey. Mhm. ku ku ñu respecté aussi. ba tax na man du ma nangu mukk di ko àtte par voie de presse. Mhm. lenn daal xam naa ko euh, président Macky Sall moo demande en relation bi bien entendu avec les bailleurs. ñu ouais. la gestion des fonds. Covid 19. Mhm. donc je pense que loolu c' est un processus. maintenant li ma gis nii nag euh, à chaque fois on tire sur lui et puis benn presse moo koy def. dama ça ressemble à de de l'acharnement ñëw ma fi nag pour defal ko mea culpa man mhm. vraiment je suis pas dans le fond des des choses mais le constat c'est que toujours il y a une certaine presse bien définie qui s'attaque à certaines presses. non en fait li ma bëgg wax mooy maanaam bariwul daal c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas traité par plusieurs presses. mais toujours c'est une même presse. kon jàpp ne am na lu lay làqu ci ginnaaw en tout cas man daal li ma gëm mooy euh, président Macky ci boppam pour des besoins de transparence mhm. moo demandé woon loolu voilà te bi mu ko demandé beaucoup de dages étaient incriminés mhm. en son temps mais daal la réalité des choses est que de plus en plus on ne parle que de Ngom Dia on ne que de Ngom Dia loolu nag c'est bizarre. il dérange. bon il dérange il dérange parce que Fatick bu ñu ko waxee tey jii nii. non non kenn wax. on parle de Biram Faye on parle de Cheikh Kanté on parle de Matar Matar Ba ak Ngom Dia ils ont travaillé ensemble xëy na foofu la problème bi nekk pas il dérange c'est pas parce qu'il dérange mais aussi xam nga. Euh, li ñuy bu ñuy santaane liggéey ñu koy def. Mhm. ñuy xaar résultat yi mais vouloir aller au détail ah de certaines informations ou ou ou de de de certaines enquêtes ci ki nga koy defal nekkul dans une posture pour wax. Mhm. moi je pense que c'est un peu de l'acharnement. c'est malsain. voilà il a c'est un jeune fonctionnaire inspecteur euh, des impôts et domaines je pense que tey en tout cas lépp lu ñu fi am ci ndam ci réew mi. Mhm. sport moom moo nekkoon à la base. en termes de gestion financière. Mhm. donc man duma dul nangu. salaamaaleykum maaleykum salaam ñu jël kati kati kati ko ba ne kii baaxul wëyu la def na lii def na lii alors que bu ñu paree seen enquête en principe dañ ko war a jox procureur mhm. procureur aussi bu ñu ko ko joxee ça opportunité de poursuite mooy juge opportunité mhm. et même si le juge que war nañ poursuivre mais il sera représenté par ses avocats dina wax bu defee dara dina wax lii la def fii laa ko teg lii moo tax mais vouloir acharner ci benn jeune cadre te en te amaguñ les résultats de mm-hmm. l'affaire moi je pense que à la limite euh, euh, du ngom ñaasa la ñuy wër je me dis que le contexte préélectoral fait que on cherche à déstabiliser le régime en tant que tel à l'affaiblir